avec l'affaire Ablaye Sylla. Hmm, Ecotra. Ecotra ay nit jóg nañ brandir ay documents jiñ ko fa sa ak sàcceeg détournement lu ne ci ci affaire ci affaire kii bi donc mooy bi bu mujj bi fii ci ci ay ay ay chroniqueur def ko fi. Hmm. ba mu porté leen plainte. ok xam kon bu wóolu loon boppam du leen porté plainte. tout à fait donc kon. même def nañ réew ñoo réew mi li ñuy war a xam mooy pouvoir bii fi nekk lii muy def nii. bi mu nekkee opposition la ko daan def ku nekk pouvoir nag war nga mën a tal leneen lu dul di continuer di dénoncer. di def ay manipulation def ay manipulation yoo xam ne yow du la amal njariñ. Mm-hmm. amal njariñ askan wi kuy kuy gouverner da ngay bëgg am dal. nañu téye nañu téye booy yii ak xale yii nekk ci internet bi di yàq ay deru nit ñoo xam ne xamaluñ leen dara. loolu rek daan andi comme comme pour merci